ab ngóob la woote woon moom honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga waa Daaru Salaam Polle ak dëkk yu ko wër ñëpp wuy si ko député bi yëkkati ay kàddu waaye di sàkku ci président Macky Sall tournée agricole bi muy def mu boole ci Touba Mbacké waaye région de Diourbel. ndax dañoo jàppoon ne tool bi buñ koy góob des na ko góob ci ñaari fan wala ñetti fan. ñaari fan lañ wax dañoo buñ ko kiyee lu ci des ñi ci des àggale. kon loolu tey bu ngeen dikkee ñu dimbale ñu jàppale ñu ba tool bi ñu góob ko ci benn fan loolu dañ leen ci sant gërëm leen. ñaan sëñ Tuubaa defal ñu taw feex mais jafe-jafe yu bari ñu ñëpp ñu ngi koy dund loolu dañ ciy profité sant leen gërëm leen waxaale jafe-jafe yu tund tund bi du dund ñu ñaan nag euh, président de la république mu jàppale ñu ci tund wii ci wenn yoon amu fi woo xam ne yoon la woo xam ne mën na boole dëkk yi ñi ngi ñaan ñu gën leen a jàppale ci loolu euh, bu loolu wéyee fii ci tund wii ma tudd nii ñoom it am nañ jafe-jafe ndox yoo xam ne mi ngi fi ñu ngi ñaan président de la République mu jàppale leen ci beneen bi ci tool yi nag mooy ñuy ñaan njiitu réew mi tournée yi mu def ci Sénégal di ko def fépp mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk dañoo bëgg tournée yooyu mu boole fi mu boole ci fii ndax bu fekkee ne chaque année ñu ngi xaar ay tournée ñu di ko def ci Sine Saalum bi ñun fii nga xam ne mooy Bawol bi ak Jolof bi duñ ko am day fay mel dañuy encouragé ñe mais ñun encouragé wuñu te ay nit bu fekkee dañoo futteeku ne ci àll di liggéey war nañoo am lu tax ñen nekkut ci àll ba di liggéey lu ñu leen tane ndax fii ñu nekk en tant que député ñu jàpp ci plan Sénégal émergent ànd ko ak gox bi ñëpp nekk ci war nañoo am loo xam ne war nañ koo tane ñeneen ñi fi nekkul ci wàllu googu kon ñi ngi ñaan président de la république moo xam ne fii ci gox bii ci tourne yi mu def tournée économie bëgg nañ mu boole ci Bawal ak Jolof ndax ay baykat ñi ngi fi te moom bu ñëw du xam lu ñu dund te moom rek mooy ki ko mën a xam amul keneen ku ko mën a xam koo xam ne am na ci njariñ ndax li nga xam ne mooy njëriñal àddina li ci wàllu état moom la ko yàlla denk kon nag ñu ngi ñaan mu ñëw jàpp lañ ci bu baax a baax taxawuñu def fi tournée économie fexe ba yoon yi fi nekk ci euh, li ñuy wax euh, PIDC ñu jàppale ñu ci ndox jàppale ñu ci ay yoon jàppale ñu ci biir courant parce que ñi fi ëpp salaire la ñu taal kàddu bàlloo ji gii barki démb la am courant man naa ne bi ñu seen lamp yi tàkki ak tey matul weer élection yi jot moom la ñuy jàppale moom la ñuy voter muy pël muy séréer muy wolof kon nag euh, ñu ngi koy ñaan mu jàpp ci taxawuñu ndax moom lañ ko yaakaare te it wax dëgg yàlla euh, bu bu deful tournée économique rek mun ta xam li ñu dund ndax fii li ko gën a rey mooy jege gi mu jege Touba te Touba ku ne xam na ne li ñuy jàppale ci biir presque dañ koy concentré ci biir dëkk bi pour mu tas ci yeneen yombul fii man rek pour ma naan ndox dina dox ay ay ay ay ay ay trois kilomètres quatre kilomètres sama jur noonu yeneen noonu te loolu metti na comme ci man la metti ay ciment nag ñeneen ñi nga xam ne lu mu bon bon maa leen ëpp lay moyen euh, kon euh, li ma leen waxoon rek la leen bis bu ñu yàlla dimbalee bañu daje euh, danañ ci waxtaan danaa ci wax wax ne koñ gox bi war nañ leen a jàppale tey loolu laa gëm tey dinaa ci dox dinaa ci jàpp dinaa ci wax kon nag maa ngi leen di sant gërëm leen ndax fii jiw yi ñu fi amakus néew sax man maa ko fiy joxe maa fi jël ay jiw di jox ay nit di leen lebal te loolu bariwul di ko dimbalee ni ñi te loolu li ñuy bay ci gerte buñ paree moom la jël gerte googu xu euh, jël ci liñ jël jiw leneen li ñu lebal ko waa dëkk bi buñ demee ba ba nawet bi jeex ñu fay ñu ko mais duñ ci teg dara mais loolu it metti na ci ñoom parce que loolu dafa dafa pour ñu loolu dafa doyul ci jiwu parce que parce que tey fii ruq la boo xam ne ni ma ko waxee diggante Jolof la ak Bawal jafe-jafe yu metti ci la ñu dund kon nag euh, ñi ngi ñaan jiitu réew mi président de la république mu jàppale ñu taxawu ñu gën ñu taxaw ba fii li ñu yaakaar ci ñun suñu borom defal ñu ko. bi ñu sant it ñu ngi yaakaar tey lañ gën a yaakaar mais dafa jot nag population bi ñu xam ne ñu ngi dund ci lu sonn ñu wax ko mu gën a leer ci bopp askan wi ndax dëkk gox boo xam ne su may santaane duñ xool maa ngi Touba duñ xool maa ngi Dakar duñ xool maa ngi Amérique duñ xool maa ngi ci tool yi su ma santaanee la ma bëgg danañ ko def jàppalee ma la ma ne loolu sëñ Tuubaa rek moo ma ko defal te mbooloo mu takk ñooy ñëw moo xam du ma ci fay dara ab dërëm du ko ci def lépp ñoo ma koy defal loolu maa ngi ci sant sëñ Tuubaa di leen ci sant di leen gërëm. jotaay bu am solo baykat yi nekk foofee yëkkati seen kàddu di sàkku ci président Macky sal mu doole leen ndax seeni i jafe-jafe dafa bari lool. ñu ngi dëkk fii ci gox bu ñuy wax Ngilo ah dañoo mar lool ndax suñuy waa kër dañuy rooti rek toujours ma am ko ci sareet dañuy takk saa di root ay kilomètres dañoo bëggoon nag mu dee saa dagg moo nekk suñ saa dagg nañu dimbali jàmbe tal na ko président mu ne nañu dimbali ñu am ndox ndox dal la ñu manqué ak machine suñu mbokk séeréer yi wol soral na leen trop dañ leen dimbali ñu am machine buy wol Touba ak Mbacke ñëpp di waajal lu tubaa waaye ñëw président de la république bi nga xam ne ñu ngi ko jàpp altine